wa man yudlil fala la wa ashhadu an la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki téléspectateurs yu Bichri TV yépp ci réew mi di États-Unis ak ci diaspora bi ak ci biti réew yépp ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam deen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mu ngi tàmbalee tàmbalee sunu kàddu ci sant yàlla subhaanahu wa di ñaan mu julli te sërmal ci sangu mbindeef yépp sayyiduna wa mawlana muhammad afdalu xalqillaahi di ñaan tedd ngeeg mucc ci moom ak ci waa këram ak ci ay àndandoom waaye ci jëwrinam ju mag ja buntam ba sunu yaakaaru tey ak ëllëg mawlana cheikh mat bamba xaadim rasul yàlla ñu yàlla dolli ñu ko fayal dolli ñu ko gërëmal dolli ay teraangaam ak leeram yu màggee ci jëmam ju tedd joojee di Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul waaye di ñaanal maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiin bunt yoon wi yal na yàlla dolli ci moom leer yal na yàlla dolli ci moom fayal na ko di ñaanal a Cheikh Sidil Muxtaar Mbàkke alxalifatul am li taifatil muridiya yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér ba li mu fas yéene liggéeyal lislaam fas yéene ko liggéeyal maamam Cheikh Ahmad Bamba yàlla na ci am lu féete kaw njortam te ànd kook taalibe yépp di nuyu bu baax sëriñ maam Mor Mbacke moom Cheikh Amadul Mourtada nekk ci liggéey bu kawe bi nga xam ni wéejuram wu tedd wa moo xalloon yoon wi ba wàcc wuy ji wéejuram Cheikhul Khadim wàcc kook liggéey bi mu koy toppatoo di ko rafetal lool ci diaspora yi di ko yaatal ñu ngi jógee rek ki démb ci bis bu rëy boobu bi nga xam ni marche bi ñu def ci New York loolu lépp di sagal islaam di sagal yoon wi di ñaan yàlla dolli ko kattan ak wér ba fi mu bëgg a yóbbu liggéey bi mu am ci lu féete kaw njortam di nuyu waa Bichri TV yëpp nag ci coordination bu sëriñ Madiama mbay ak sëñ Góora ñu leen di nuyu ci liggéey bi ni rafetal di def liggéey bu am solo di ko yaatal ba taalibe yi mën cee jot rawatina ñu nekk diaspora bi di nuyu sëriñ Sidi Mbacke moom sëñ Ibra Assou maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam xam ni moom dañ ko tuddee maamam maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam waaye muy jëmm joo xam ni liggéeyam bépp génnul rek tasaare liggéeyu Serigne Touba beeg liggéeyu maam Cheikh Anta bi di ko defee nag ca senegal ba bi muy dikk fii ci loolu la ma sa nekk mu koy yaatal fii yaatal bu rëy ca Las Vegas ñu dégmal bisam bu rëy boobu bi nga xam Las Vegas da koy def le 21 septembre di ko ñaanal mu daje cee ngërëmu maam Cheikh Anta daje cee ngërëmu Cheikhul Khadim mbokk yi tey xam ngeen ni ñu ngi dellusiwaat ci beneen waxtaan woo xam ni dañ ko war a séq ak yéen seen mbokkum taalibe Abdoulaye Diop Bichri toog di waxtaan ak yéen ci Bichri TV waxtaan wi nag ci kenn lay jëm ci njabootu Serigne Touba muy sëriñ Abdoul Ahad Mbacké radiyallahu anhu nekkoon kenn ci njabootu Serigne Touba nekkoon ñetteel bi xalifab Serigne Touba nekkoon koo xam ni nag ba fii ñuy waxee murit dootu ko fàtte ngir yar na murit yi dimbali na murit yi dolli na seen bëgg ci sëñ Touba dolli seen liggéeyal seexul xaddiim suñu waxee kooku mooy sëñ Abdoul Ahad waxtaan nag dafay laaj ñetti point di nga waxtaan ci juddu waxtaan ci jëf waxtaan ci jikko bu ñu duggee nag ci juddoom juddu bu rëy la ko yàlla joxoon ndax ku nekk xam na ni fi mu bokk moom néegu alquran la fi mu bokk néegu sunn la fi mu bokk néegu njàmbaar la fi mu bokk néegu liggéey la fi mu bokk néegu sàmm la néegu pastéef la fi mu bokk néegu ngërëmal yàlla la muy kër sëñ Modou astu Diakhaté mi nga xam ni mooy wéyjuru soxna Mariama Jaxate mi nu indil sëñ Abdoulahat sëñ Modou Astou Jaxate mu méew nu Jaxate bu nekk xam na ni ñi jamonoonteeg moom ñëpp nangu woon nañu ak wilaayaam nangu woon déggam alxuraan nangu woon ak sàmmoom nangu woon bu baax a baax ak juboom ak sunu boroom sëñ Modou Astou Jaxate moom yi nag dafa wëllërante woon ak Serigne Touba Xaadim Rasul lool ba mel na ni Serigne Touba jël na ci njabootam. ku mel ni soxna Mariama Jaxate mii nga xam ni moo nu indil sëñ Abdoulahat mi nuy waxtaane indil nu rakkam sëriñ son yi bu Mbàkke waaye jëloon na tam ci njabootam moom sëñ Touba muy soxna Faatu Jaxate mi nga xam ni soxna Faat Jaxate moo nu indil sëñ Abdul Quddus Mbàkke moom sëriñ Touba ak sëñ Abdul Baaxe Mbàkke moom sëriñ Touba ak soxna Tahiratu Mbàkke ak sëriñ Saaliwu Mbàkke mi ñëpp xam nag nga xam ni jamono moom dootu ko fàtte mukk ba tey ñëpp a ngi koy waxtaane ak di ko jooy ak di ko fàttaliku sëñ Modou Astou Jaxate moom mii nga xam ni kon moo nu indil soxna Mariama Jaxate da ngay wax ni soxna Njeng Sill bokkoon ci ak njabootam moo nu indil soxna Mariama Jaxate mi nga xam ni seexul di moo ko jël am ci sëriñ Abdul Ahad mi nu war a waxtaane ak sëriñ son yi bu Mbàkke sëñ Abdul Ahad mu ngi gane àdduna ci atu 1914 ci li gën a not ci téere yi nettali yépp ci histoire mu ngi feeñe tam ci dëkkub sëriñ Touba bu tedd bi ñuy wax njaareem te ci zaayir fa la Serigne Touba ëpp temps bu mu fa def ndax Serigne Touba ba mu waxee raamu masiri ila jurbel la daa lasasin law aayenoo sirrama fi sayri ma raamu ñoom nasaraan bi dañu may indi ci dëkk bu tedd boobu tudd jurbel di su ñu xamoon nag secret bi yàlla def ci sama dox bi may dox wara ñëw njaareem duñ ko sàkku mukk waaye réer gu nu réer a tax ñu may indi njaareem te bu nu ma fi indee lu leen dama fekk ci njaareem njaareem googu tamit ahyaytu mawlida nabi min asasin wa qaada lii fawqal muna fi talsasin nee na daal man dundaloon naa gàmm ci atu 1881 defoon naa ko ca Mbàkke waaye nag bi ma ñëwee njaareem ci atu 1909 ba 1912 ba 1925 bi ma jógee Jolof rek 1912 dikk njaareem yàlla indil na ma secret yi nekk ci gàmm nag jox ma ko fa ci atu 1912 am na fu mu wax 1925 yooyu yëpp di ay jamonoy njaareem njaarim googu fële kon sëñ Abdul feeñe bi mu feeñee tamit am na yu yéeme yu ci xew yu tax ñëpp xam ni kii ñëw moom mbër la mu kawe fi yàlla waaye ku sori la ci kër Serigne Touba Xaadim Rasul ndax Serigne Touba moo ca wax wax yu yéeme te booba mu nga fekkoon njaboot ga ñu bari teew fa bokkoon na ci seex mu Amadou Lamine Baara Mbàkke moom Serigne Touba bi sëñ Abdoulaat feeñee la ca sëñ Touba wax bañ koy tànnal tur da ko faa fekk ba sëñ Mouhamadou Lamine Baara moom seexul xaddiim di wéy juru sunu xalifa bii di Cheikh Sidil Mokhtar yàlla na fi yàgg te wér ba mu delloo këram dani faawu ma tudde doom sëñ Abdoul Ahad moo ko njëkk a tudde doom ci ñi mbokkal Serigne Touba keroog bi mu feeñee wax nañu Cheikhul Khadim waxal na boppam ni sama gan gii ñëw dey du ñee dara ca doomi Mariama ja doomi Mariama jee de lu mu làmboo woon ci mbaax sama gan gii dina ko andi daf doomi Mariama jël moo yenantu yàlla Isa waaye doomam ji tamit soxna Mariama ko jur mu ni doomi Mariama jii de mën du ñee dara ca doomi Mariama jee ndax mbaax ki ci moom Serigne Touba wax na ci moom ni turam wii nga xam moom laa ko tànnal nga xam ni dafa jàngaloo kenn ci mag ñoo ñu ko jige suuratul Ixlaas qul huwa allahu ahad ba mu àggee ci ahad ga Sëñ Touba ni ko nan yem foofu tuddee leen ko Abdul Ahad te bi nga xamee ni tudd ko ko amul kenn ku ko mës a jiitu tudd tur ci moom lañ ko njëkk a xamee muy jaamu aji kenn ki di yàlla muy Abdul Ahad Serigne Touba wax ni képp ku mën turam sa yaram araamal na safara. loolu ñi fekke woon ak feeñam yépp ci njaareem nettali nañ ko dafa mujj mag ñu ku nekk naan sa moroom téyal ma bu baax ma récité ma wax ko sawet ba nga ba xam mën naa ko bu baax ndax gu nu xam sëñ Tuubaa lu mu wax yàlla dogal na ko ba noppi jox ko ci ndigal mu door koo ñaan moo tax ku ne naan Abdul Ahad Abdul Ahadi Abdul Ahadi ngir bëgg rek mu jub ndax noonu ko sëñ Tuubaa waxee ni képp ku mën turam sa yaram araamal na safara sëriñ Tuubaa waxoon na ci moom ni kii feeñ ji am naa ci moom yaakaar nga xam dafa jox mag ñi xasida ak fusti bi zarfil asanaat nga xam moom lay woy soxna Mariama mu mag mi jur yanantu yàlla Isa moom la jox mag ñi bi soxna Mariama mu tedd mi jaxate indilee ñu sëñ Abdou Lahad mag ñi di ko yëkkati sëñ Touba naan sama gan ji am naa ci moom yaakaar yaakaaru sëñ Touba googee nag sëñ Abdou mooy ki taxaw ba dara tasu ci lépp la matale lépp la def ndax bokkoon na ci ndam rek alxuraan ji sëriñ Touba bëggoon ba nga xam ni fu sëriñ Touba masa nekk muy jataayam. alxuraan lay jël teg ko ca kaw lalam yu tedd ya ak jël jëmmam ji ñëpp di wuti tëdd ci suuf moom jël alxuraan tëral ko ca kaw ànd di ko tagg naan ko yaa kitaabal karimi anta habibi wa qalili wa kunta xablu tabibi anta izi wa mafxari anta jaahi anta kënsi yaa faxra kulli labibi kitaabun karimun min karimin mukarrimin li abdin karimin nawara sharqa wal garba kitaabun majidun min majidin mumajidin li abdin majidin qad ala al ujma wal qurba kitaabun azizun min azizin muazizin li abdin azizin duunahu man hawa qurba fa tuuba li abdin yabudu llaha rabbahu bi tartili quranin azimin yaqi karba ànd ak naan ko kitaabun bihi narju min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa oxra min alkarbi ànd ak naan ko qiraatuha kanzi wa jaahi wa izzati uniltu biha kawni ladallahi za sidqi sëñ Tuubaa lu nekk wax na ko alxuraanul karim ngir bëgg gi mu ko bëggoon yaay sama womat yaay sama coffre foor yaay sama banque yaay sama tiitër yow yaay sama euh, trésor yow sëñ yow yow alxuraanul karim kanzil kitaab wal hadis wal adab laa jam'u fiddatin wala jam'u zahab téere bu réy boobee sëñ Tuubaa waxoon ni ko yow daal ci àdduna lu may sàkk ci yow laa koy sàkkoo lu may not ci yow laa koy note yàlla may na ma la yow alxuraanul karim malakanil qur'aana tamlikan yadum waaye naan ko yow ëllëg lu may muslu yow yaa ma ciy musal ànd ak naan alxuraanul karim mokkal naa la man seexul xadim laata ko yàlla di wàcc ci sayduna muhammad fekk na ma jàng la mokkal la yow alxuraan afistu ma anzalahul jalilu qabla wusulihi maa tartili téere bu rëy boobee doyoon na ko ndamal sëriñ abdoulahaat man nga ne defaral na ko béréb boo xam ne fala alxuraan di fanaan ca Touba mu tudde ko daara ka daaray kaamil 1975 la rakkam ci tedd ga sëriñ Chouaïbou Mbacké jox ko pàkkam boobu nekkoon këram ni ko bu ñuy defal daara alquran maay joxe sama pàkk dem rand daarul quddus jox la ko sama mag ju baax ji foofee la sëñ Abdoulaye defar daaray kaamil ba bi mu wàccee liggéey fa lañ ko tëral jëmmam ju tedd ci ñu koy ziyaare waaye mbokk yi sëñ Abdou Lahad mooy ki nga xam ne moo yar taalibe yi murit yépp ndax demoon nañu ba mujj gi xéewal yi bari na fuy tànk yomb lool waaye moo teg taalibe yépp ci siraatal mustaqim yar leen àggale yéeneb sëriñ Tuubaa àggale mébétu sëñ Tuubaa yaakaaru sëñ Tuubaa ga bañ a sooy loolu da nga naan suñu jàmbaar gi sëñ Abdou Lahad moo nu ko defal moo nu yokkal suñu jumaa ji tamit moom sëñ Abdou Lahad Mbàkke kon bu ñu demee ci jëf yi di nga gis réalisation yu baree bari la def waaye danoo nekkoon ci gane àdduna gi nga xam ne dëkkub sëriñ Tuubaa bu yéeme boobu yi sëñ Tuubaa wax ne pepp suufub njaareem tolloo naag kaamilu alxuraan ci taxawaay te dëkk bu tedd boobu yi sëñ Tuubaa jëfe lu nekk ramm fa ay nit ñoo xam ni euh, ci lu wér-wér leen ramm am na ci benn séeréer bu sàgganoon boo xam ni fala daanoo ci péncam moo muy wàcc liggéey keroog bi mu wàccee liggéey ñuy dafa dekkoon ko sàggan kon kenn ñimew koo laal coow la ni kur sëñ bàll Faali Jeng mu baax ma moo dem fekk sëriñ Touba ci keesam daal di koy wax ni ko mbàkkee di mbir am na séeréer bi woon ca wàll wa te daan romb fii te sàgganoon lool moo wàcc liggéey pénc mépp nag ñu ñun ciy wax ndax kenn ñimew koo jël ngir ni mu meloon sëñ Touba la mu ko wax mooy sëñ bàll Faali xaar ma ñëw dugg ci keesu biiram génne fa juróom-ñaari mètre càngaay génne fa liban ak sikki ay parfum la génne fa càngaay lu yéeme jox ko sëñ Balla Faali Jeng ni ko séeréer boobu ñu wax ne daa sàgganoon soo génnee na nga ànd ak fere yi ngeen dem toppatoo ko na ngeen ma ko sangal na ngeen ma ko sangal na ngeen ma ko julleel su ngeen ko defee ba àggal ngeen ko rob sëñ Balla Faali mu ne ko Mbàkke mu ne ko da ngeen ko taxawoo noo xam ni yéen ñii ma topp ku ci wàccoon liggéey noonu ngay bëgg ku la ko taxawoo sëñ Balla Faali mu ne ko Mbàkke mu ne ko su ngeen ko taxawoo ba rob ko ba noppi nag su dekkee dekkiwaale àjjanay gàcce sëñ Balla Faali daal ni cooy yi sëñ Tuubaa gestu ni ko Balla Faali mu ne ko Mbàkke mu ne ko noon naa am loo wax mu ne ko dama ni cëy lii day yéeme na sëñ bi ni ko lu la ci yéem mu ne ko damaa mësul woon a xam ni aljanay gàcce am na sëñ Tuubaa ni ko waaw am na kay ndax àjjana su fekkee jëfoolu la fa yóbbu waxoo ko yéenewoo ko soo xëyee suba dem ca boo ca demee dem nga ci àjjanay gàcce ni ko séeréer boobu àjjanay gàcce lay am ndax sama suuf si moo nanguwul kenn faatu fi di dem feneen fudul aljana keroog la ca sëñ Tuubaa wax yu yéeme wax ko ni ko ñaata temps laa fi def bu fekkee def naa fi téeméeri xarnu ba muy téeméeri yoon sëñ Balla Faali Jeng ni ko fukki junniy at mu ni ko suuf si kon nekkoon na ko fi kenn jaamu ko yàlla man Ahmadu ma ñëw fi jaamu ci yàlla ba ñu toxal fa lépp lu bon indi fa lépp lu baax moo tax ginnaaw loolu suufu si njaareem nangootul kenn di fi wàcc liggéey di dem fudul ca jannatu naim sunu borom teral la kon dëkkub sëñ Touba bu tedd boobee nga xam mën nañ koy wax lu bari fa jàmbaar gi sëñ Abdou Lahad feeñe woon ci atu 1914 bi mu tollee ci njàngit ñu jeexal fu nu ni xam-xam yépp lu ko sëñ Touba boole ñu jàngal ko bokk na ca sëñ Habibu Mbàkke jàngal na ko moo ko jàngal mook sëñ Saaliwu jàngal na leen téere yoo yi nga xam ni mooy téere fiq yi di téere xam yi téere yi nga xam sëñ Tuubaa taalif na ko ci xam-xam ay tasaw di zixaar ak yu demee noonu waaye bokkoon na ba tey tamit ci jàng yi mu jàng sëñ Amsatu Jaxate di nijaayam di léppam nga xam ni nekk na ak moom temps bu yàgg jàngal na ko moo defee sëñ Alsaan Jaxate tamit jàngal na ko waaye bokk na tamit ci xam-xamam bu rëy boobu ñi nga xam ni ñëpp nekkoon nañ ci kippaaru sëñ Tuubaa muy kër sëñ Daam Abdourahman Lo jàng na fa kon sëñ Abdoulaye daal ci dundam lépp ci njàng la ko ak ci ndigalu sëñ Tuubaa wax nañ itam sëñ tuubaa bëggoon na ko lool ndax xam ngeen ni bi mu tollee cim njàng sëñ Amsatu Jaxate mas naa wax sëriñ Touba ni ko daal njaboot gi ma jox dama leen di jàngal ki ñuy wax sëñ Abdou Lahad de soxla na ku ko defal kiis ngir mu gën a mën a ubbeeku ci fànn jàng yi sëriñ Touba ci saa si dafa jël morso boo xam ni ci morsoom la bokk yéeréem la woon jox ko ku ñuy wax sëñ Mor Sourang ni ko nañ ko ko toppatoo nañ ko ñaw te jox ko ko mu sol ko te li nga ci jànge tamit ni kiis moom li ko ñëpp baaxoo mooy lu ñuy naan waaye sëñ Touba daa nuróote nit ñi dara moo tax yéeréem la jël jox ko ko ñu na fexe ba sol ko ci yaram sëñ Abdou wax na ginnaaw bi nee na bi ma sëriñ Touba joxee morsom boo bii ma sol ko maa ngi wa waat ci màggug sëñ Touba dara rombul sama nopp wala mu romb sama bët man Abdou Lahad ma fàtte ko moo tax mujj gi boo ko masaan a dégg muy wax danga xam ni ko sëriñ Touba dimbali moo toog di wax sëñ Abdou moom yi tamit am na yu bëri ñu mën a tegtaloo ni moom dafay sëriñ Touba ndax sëriñ Moussa Alima Gueye bokkoon ci mag ñi nga xam ni ñu jege woon sëñ Touba la bokkoon ci bindkat yi nga xam ni ko mënoon alxuraan la sëñ Touba daa ko bindiloo alxuraan sëñ Moussa Halima Gueye nee na fu ma mësee dëkk male jataayu sëriñ Touba di ko nuyu ji ba sëñ Touba gisee may ñëw day jël aaya alxuraan boobii ni ma yaa Moussa aqbil wala taxaf innaka minal aminin noonu la sëñ Touba doon waxeek man te moom mu ngi tudd Moussa te xam ngeen ni loolu yàlla moo ko waxoon yenantu yàlla Moussa alayhi salaam saa bu mu yenantu yàlla Moussa masa am rendez-vous sunu boroom sunu boroom buy wax ak moom laata muy wax ak moom ne ko yow Moussa dëkk mël si ma te bu ragal protégé naa la loolu la sëñ Tuubaa tam doon waxanteeg Moussa mii ni ko yaa Moussa aqbil wala taxaf innaka minal aminin nee na bi sëñ Tuubaa wàccee liggéey 19 juillet 1927 déggaatuma ko ci kenn ba 1969 bi sëriñ Fàllu wàccee liggéey ba ca déwén sa sëñ Abdoulaat boobu jamono mooy sëriñ Tuubaa sëñ musaa Alima Gueye nee na booba dey mag laa lool waaye bi ma ñëwee di nuyu si sëñ Abdoulaat bi ma nee tëll jàkkaarloog moom dani ma yaa Moussa aqbil wala taxaf innaka minal aminin keroog damaa daanu xam ni sëriñ Touba toogaat di wax ak man kon Serigne Abdoul mii dafay seexul xadim ci lu baree baree bari waaye Serigne Abdoul Ahad nekkoon jëmm joo xam ni bëggam sëriñ Touba foo ko natt rek weesu na ko am na kenn ci njabootam ku mës a ànd ak moom di dem ci wetu jumaay Touba ji jëmm ja daal di mel ni ku fakkastalu daal di wax ni yaa Cheikh Abdoul ndax Serigne Abdoul Ahad la yaakaar waaye sëñ Abdoulaye dani yaa Cheikh Mat Bamba Xaadim Rasul jëmm ji ni tekk ma gastu ni ko xam nga ni ki may woo man Abdoulaye de bokkut teg ki ngay woo yow pour wan ko rek ni ko Serigne Touba amut moroom noonu la bëgge woon Serigne Touba. yar taalibi yëpp teg leen ci siraatal mustaqim bëggoon loolu sunu boroom bëggoon loolu alquran bëggoon loolu kuy jëf-jëf ju set yiw bëggoon loolu ku dëggu am na ku ko mës a fekk ca belal di def li ñuy wax pecc amu feccee ba àggal sëñ Abdoulaye Xaat ni ko loo ci jublu. mu ne ko damaa laa bëgg a bégal rek ngir xam ne yaay Serigne Touba waaye sëñ Abdou Lahad daf ko ni boo dee ba def ñetti fan ci suuf di nga xam ni kilifa du fo kilifa lu mu def lu dul jaamu yàlla waru ko kon nga xam ni ku bëggoon ku jub la ku bëggoon ku sàmm ku bëggoon koo xam ne doo yàq sa temps lépp da koy jox alquran jox ko xasaayid yi jox ko liggéeyal Serigne Touba bëggoon ku am ki teggin bokkoon na ci ay waxam daana wax naan yaree di ko ku mu may kaasub kafe soo yar woon di am dogu moo ci boole taalibe lu mu am lu dul yar rek wàcce na ko sëriñ Mbay Jaxate dafa waxoon ni ab yar la dee fi rawe nit ab yar la dee fi sute nit ab yar la dee fi gëne nit nde du juddoo kër yu yax ab yar yemoowul ak dara soo ko amee ñàkkoo dara soo ko ñàkkeet amoo dara sëriñ bi yàlla nañu ko jox sëñ Abdul Ahad mi nuy waxtaane ku bëggoon ko yaru la waaye jëmm la joo xam ni ku fonkoon njabootu sëñ Tuubaa gi la ku nekk mu am leeg yow ku nekk mu teg la fële sëriñ Tuubaa teg jëloon jëmam ju tedd ja teg ko ci service su lislaam teg ko ci service su ñi mbokkal bokkal sëñ Touba ndax wax naa la léegi ni la bi nga xamee ni feeñ na 1914 moom sëñ Abdou Lahad ku nekk xam nañ daa fekkoon Seex amut Lamin Baara magam ñëwoon fa di siyaare sëñ Touba dégg wax yu yéeme yi nga xam ni sëriñ Touba wax na ko ci rakkam jooju di sëñ Abdou Lahad sëñ Baara nee na su ma ñibbee sama kër guy mbind doom ju ma njëkk am muy góor dinaa ko tuddee sama rakk jii di sëñ Abdou Lahad ngir dégg gi ma dégg sëñ Touba wax ko ci gan gii ñëw bi mu ñibbee ci la am sëñ Abdou Lahad Baara ci boobu jamono tuddee ko ko 1915 moo tax ku nekk xam na ni sëñ Abdou Lahad mu sëriñ Touba premier turandoo bi mu am ci njabootu sëñ Touba mooy sëñ Abdou Lahad Baara te ay weer la ko magee ndax 1914 ak 1915 la te kooku yi doom la ci moom di sëñ Abdou Lahad Baara sëriñ Basiiru Baara nettali na ma moom sëriñ Baara moom sëriñ Touba di rakk ci xalifa bi nekk géejawaay ndax wax day laaj ci fii laa ko jële sëriñ Basiiru Baara ñu koy wax sëñ Bas building moo ni ma sëñ Abdou Lahad nee na ko xam nga lu tax ma xër lool ci yow bëgg la sëñ Basiiru ni ko déedéet mu ni ko yu bari da koo waral sama doom nga ndax maag sa baay danoo bokk baay dama laa defil jëwrin ci Dakar ngir bëgg taalibe yi di yem ci yow mu leen di noppal ci liggéey bi ni liggéeyal sëñ Tuuba waaye nag dafa am leen lu ci dolliku sa baay ba sëñ Baara dafa nekkoon loolu sama xarit di sama kóllëre daanañu kaf sax maag moom di tooñante ndax su ma ko masaa gis damay woowee sëñ baara naa ko wàllu yu kajoor su ko defee sëñ baara ni ma wàllu yu fépp laa dëyi sañ bambaa ma ko def fépp wàllu yu laa fa nee na sëñ baara ci boppam moom la njëkk a tudde doom moom sëñ abdoulahaat sëñ abdoulahaat ak ko nettali ni ko sa baay man la njëkk a tudde doom wax ko lii ma la wax ni ko daa fekke woon bi ma feeñee moo tax ginnaaw bi man la njëkk a doom ni ko am na bi sax mu wooma ma koy gunge ci dëkk boo xam ni kajoor la woon ñu war faa berndeel sëñ baara di ko fa waajal ay xéewal ne bi mu ñëwee ba togg ba xéwal yi sotti sëñ Abdou Lahad nee na man mii la àndaloon waaye ci saa si la ne ma jugal ñu dem génn ba sori dëkk bi nee na ma ni sëñ Baara ah Mbàkke daa mel ni yow yaa taxoon ñii di son di la defaral xéewal kon suñu demee xéewal yi ku koy jëfandikoo mu ne ko di lañ ñëwaat jëfandiku ci waaye damaa am lu ma soxla te faaw nga gunge ma ñu génn dëkk bi sëñ Abdou Lahad nee na ma yéemu ci lool daal di koy gunge ba nu génnee ba dox lu mat un kilomètre nee mu ne ko nañ taxaw taxaw fa lu yàgg sëñ baara ni ko abdul ahad mu ni ko mbàkke mu ni ko nañ dellu ca dëkk ba ban jóge woon nee na ma xaw caa yii mu lool mu ni ma abdul ahad ma ni ko mbàkke mu ni xanaa ni may defe de jaaxal na la mu ni ko waaw mu ni ko ca fajar ba léegi bi nu ñëwee ci dëkk bii malaakal mawti di malaaka bi yor ruu sunu borom da koo yebal mu war a jël ruu kenn ci ñooñu di ma toggal xéewal yi te feek man Cheikh Mouhamadou Lamine Bara maa ngi ci dëkk bi ndawal yàlla loolu du jël ruwam ndax man la rus daf maa jox daf te mënuta ma nekk ci dëkk mu leen teg benn coono wala benn lor loolu moo tax nanguta jël ruwam fekk maa ngi fi man it ma bëgg liggéey suñu boroom bi kenn bañ koo tàrdel moo tax ma génn dëkk bi ndax bu buñ la rusee da nga koy xam xam naa bu ñuy delluwaat ci dëkk bi dinga fekk ki ma lay wax faatu dina daanu ci foofu ñu may toggale ci sébb boobu lay daanu faatu fa sëñ Abdul axaat nee na bi ñu ñëwee ba mal dëkk bi ma dégg kooku daal di faatu nee na keroog yéemu naa lool waaye gën naa cee jànge ni sëñ Baara dëgg-dëgg moo réyoon ak wilaaya kon sëñ kóllëre la am lante woon ak ñépp ñi bokkal sëñ Tuubaa diggante mi sëñ Abdul Xaadir nag moom man nga ni altine kalaata la ñoom ñaar dañoo nekkoon ay kóllëre lool ginnaaw bi nu bokkee sëriñ Tuubaa ndax bi sëñ Abdul Xaadir di dem Màkka te ànd ak sëñ Asan Buso moo mujj fa des at moo mii alaaji baara mii nga xam ne yàlla yàlla yokk leeram mooy surtout sëñ Tuubaa bi njëkk toogal sëriñ Tuubaa ci xilaafa gi wax na ni sëñ Abdul Xaadir da leen dugal ci oto bi boole sëñ Asan Buso sëñ Abdul Xaadir moom ba nu ñëwee ba war a tàggatoo mu ni moom sëñ Abdou Lahad mii nuy waxtaane dañuy sëñ sëñ alaaji baara alaaji mu ni ko mbàkke mu ni ko damaa bëgg lool doomi sëñ Tuubaa ji di sëñ Abdul Xaadir dafa sori lool ci sama xol bi te su ma amoon jot maa koy yóbbul sama bopp màkka gunge ko ma bëggoon nag dénk la ci loo xam ni dama koy dénk sëñ Tuubaa sant la ci ab liggéey damaa bëgg sëñ Abdul Xaadir mii jamono bi mu demee màkka di tawaaf na ko toppatoo ba bu ko dara xoos bu ko dara jige bu ko dara lor soo ma ko topp toolee ba mu ñëw sa dara xoosu ko yow alaaji baara mii de loo bëgg dinaa ko ñaan sëñ Touba te sëñ tuubaa dina ma ko defal alaaji baara nee na bi sëñ Abdul Xaadir di tawaaf àgg naa ci dama koy boot di wër ak moom mu ne at moom mii sëñ Abdoulaat dogal na ma ci loo xam ni dem naa ba teg sama bët kon sëñ Abdoulaat noonu la bëggee woon njabootu sëñ Touba gi digganteem ak Serigne Saliou nag moom gannaaw ba seen ñaari wéjur bokkee lépp ku ne xam nañ dafa nekkoon kóllëreem am na bis sax Serigne Saliou ñëwoon nuyu si ko ci këram ba muy génn sëñ Abdoulaat ni ko dama fee defaroon néegub yàlla bëggoon nga ñaan ci sëñ saaliw ni ko waaw mën nañ cee ñaan de waaye leen rek kama ci jaaxal jàkka yi dafa mel ni dafa mooy xibla bi dese naa fekk féete ak penk bi keroog sëñ abdoulahaat dani ko waaw góor yow rek a xam xibla daal di jël loxoom dugal ko ci jibo bi génne ca caabi ja ni ko dama koy tëj duñ ci julli ba defaruñ fekk defaruñ ko ndax yow rek yaa xam xibla bi kon loolu dalay lay firndeel ni cëru ku ne joxoon na ko ci kër sëñ Tuubaa noonu leen bëggee woon sëñ Mouhamadul Moustapha nag moom jëlal naa doom ji mu ko tudde waaye da koo bëggoon lool def ko léppam daana wax ni at yi nekk ak sëñ Touba dafa bariwul sëñ Modou Moustapha nu defal lépp moo nu toppatoo moo nu yóbbu ak ñu àggale sunum njàng moo nu taxaw ba bañ demee carte baloo ji bëgg a am xam-xam ñoo ko wax ni ko kër sëñ Abibu la ñuy gën a mën a jekkoo xam-xam moo nu fa indiwaat digganteem ak sëriñ Fàllu noonu la demee woon daana dem ba sëñ Fàllu sol dàllam gane ji ko ca kàbb gay Kajoor nga xam lu nekk def lan dañ ko tudde ay doom ku nekk tudde sa moroom doom woyante lu dekk jaar na ci seen diggante digganteem ak sëñ son bi dañoo bokk ñaari wéeju digganteem ak sëñ Muhammadul Murtada mi ku nekk tamit xamoon na ko kon jëmm la joo xam sëñ Abdul Ahad eh, sàmmoonte na woon lool ak njabootu sëñ Tuubaa ku ne mu bëggoon la kone ne mu defal lu nekk waaye njabootu lislaam it ko ko rafetaloon la bëggoon këru diine yëpp ñëpp it bëggoon ko boo demee tey ci kër laa yi tudde nañ ko doom sax muy doomi sëñ Ablaay Caw Laay ñëpp a bëggoon sëñ Abdul ngir dëggoom guréy ga mu amee woon ngir njàmbaar guréy ga nekkoon ca moom ngir Pastef ak bëgg Serigne Touba ga mu nekkee woon ngir fonk nga alxuraan nga xam ni waxam du génn alxuraan te bu la waxalee dara ci alxuraan day résumé sa dund lépp mu tegtal la ko kookoy sëñ Abdou Lahad muy jëmm joo xam ni yoonu murit du ko fàtte kër Serigne Touba du ko fàtte képp ku bëgg lu baax mënoo fàtte sëñ Abdou Lahad ngir yar gi mu yar murit yi yee gi mu leen yee ci liggéeyal sëñ Touba bëggoon sëriñ ba mu jaral ko lépp ndax sëñ Touba bi muy bind dafa wax ni sama dund sama wàcc liggéey sama yëngu sama dal sama cofeel sama teraanga sama jaamu yàlla lépp tàbbal naa ko ci biir yanant bi alayhi salaatu wasalaam sëñ abdoulaat boo demee ca téeréem booba loolu la wax sëñ Touba dani sama yëngu sama dal sama jaamu yàlla sama lépp sama bëgg-bëgg tàbbal naa ko ci biir liggéeyu sëriñ Touba bi moom mësta am lu muy bëggal boppam lu dul bëgg sëriñ Touba gi léppam seexul xaddim la ko joxoon réyug wilaaya lool bari baatin lool sëriñ Mor sa baaxum borom léppay baax di doomi sëñ góor a baaxum sëñ góor a moo jóge woon yoof ñëw jox boppam sëriñ Touba sëriñ Touba boole sañ góor a baaxum ak maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam ginnaaw bi mu ko dimbalee fa la nekkoon maam Cheikh Anta ko tarbiya sëñ góor a baaxum moomee doomam sëñ Ibra baaxum moo fi nekk tey di xalifa bi yàlla na fi yàgg te wér korite ku jot bu ñu ko defee ba ca ginnaaw suba ga man mii di wax lay jël maa koy conférence ci maam Cheikh Anta ci dëkk bu ñuy wax euh, sa ndeer ca wetu ngaay sëriñ Mor Faasa baaxum mu nga nekkoon daaru baaxum ñu koy wax borom léppay baax mu nekkoon ku yéeme sëñ Touba defal ko teraanga yoo xam ni defal ko wilaaya koo xam ni soxla bu waay indi ci àdduna su ko neexee dana lépp ay baax boo demee lépp sotti dana lépp ay baax barke sëñ Touba te du jar muy bind sëñ Mor moomee dafa amoon lool ray bu ko yàlla baaxee may ko lu mu yu fàddu yi mu xam ci lu baree bari di mbërum sunu boroom dafa am bis mu woo bëkk néegam yebal ko ci sëñ Abdou ni ko boo demee fekk ko belel baax na wala nga fekk ko Touba foo nga ko fi mën a fekkal ba ca kàbb gay baax na li ma bëgg daal nga waxal ma ko nee ko am naa yóbbante sunu boroom ci moom yàlla nee na suba bala moo julli suba na fexe ba na jël ñaari gàtt yu weex tàll ñaari xar leen euh, lewal jël leen def leen ay saam fukki saam ak ñaar na ko jéggi sarxe ko bala moo julli suba na fexe ba sarxe ko lii kat sunu borom moom a ko yóbbante ci sëñ Abdou bëkk néeg ba ni ko incha allah daal di fay jóge ba mu ñëwee laajte sëñ abdulaat ñu ne ko dem na kàbb gay mu dem ñu ne ko dem na léegi belel mu ñëw këru beleel gi ba mu agsee ñu ne ko sëñ abdulahaat de dafa waxoon bi mu jullee gee ba nopp ko kenn fëggaat fàttu na ba subaate rek mu ni loolu ndigal la waaye damaa ne ci kaw ndigal kon naa toog xaar ko rek ba mu ubbi ba suba jotee sëñ abdulahaat ubbi kees gi daal ni ko ana na nga def mu ne ko maa ngi fi rek mu ne ko sëñ Mor Faasa mu ne ko mu nga fay baax rek mu ngi lay nuyu bu baax mbàkke ana lu mu wax mu ne ko nee na yàllaa ko yónni ci yow nee na suba bala ngaa julli suba lu nga wut ñaari gàtt yu weex nga lewal leen def ko fukki saami ndawal ak ñaar nga jéggi ko daal koy sarxe bala ngaa julli suba sëñ abdulaat ni ko lu tax nga yeexa ma koo wax ba suba jot mu ne ko bëggoon naa la koo teel a wax waaye damaa ñëw fekk la fatu te waa kër gi wax ni yaa joxe woon ndigal bu la kenn fëggaat mu ni ko sikkiwul nga dëgg waaye xàmmee nga melo yim la wax mu ne ko waaw mu ne ko doxal ñu dem sëñ abdulaat moo ubbil boppam benn kees ci keesam yi ni ko xoolal dawalal sa bët nga xool loo fi gis jëmm jooji xool bëtam gis ñaari deri xar yu weex tàll di lang mu gis fukki saami ndawal ak ñaar ñu juug leen sëñ abdulaat ni ko melo yi la sëñ Mor Faasa waxoon ndax wuute naag yi nga gis mu ni ko wuutewut de mbàkke mu ni ko soo demee nee ko waaw góor xam naa ni fàttewuma waaye nga wax ko fi nga ma fekk sëriñ Touba ma jur te lu mat a xam dina ma ko xamal ñeent fukki guddi te dara du xew fekkoon na ma def ko ba noppi kon kooki mooy sëñ Abdoulaat ci wilaaya dara lu nëbb lu lu mu xamul amul bëggoon sëñ Touba lool daana wax ni laata ma koy nekk de jafe woon naa gis lool gént ko sax jafe woon na ma waaye bi ma atum 68 bi sëñ Fall wàccee liggéey ba nu denc ko sëñ Touba ñëw na sama kees juróomi yoon ci ay melo yu wuute ci laa xam ne nekk naa sëriñ Touba nekkoon nit koo xam ni. amul kenn ci àdduna koy dox ku mënta wax dëgg ndax dëgg rek ci la daan dox alaaji njuga kebe mii di taalibeem bu mag bi yàlla na yàlla dolli ko yërmande ba mu defaree këram gu réy googu di paleem bi invité fa sëñ Abdou sëñ Abdou Lahad dugg fa mu visité loo ko kër gépp ba mu àggal alaaji njuga dani ko noo gisee kër gi mu ne ko ah leen rek ma jaaxal de àdduna gidul sax rek waaye bu àdduna doon sax de ma xam ne kenn dàqu la kër am nga kër kon koo mën a doon sëñ Abdou Lahad la wax dëgg noonu la dëggoo woon noonu tamit la fonke woon liggéeyu sëriñ Tuubaa bi noonu la sagale taalibe yi teg leen ci yoon ak koo mën a doon dina teg ci yoon dina la yar ba boo jógee ci moom dara lu mëntu laa jaaxal kooku sëriñ Abdou Lahad bëggoon loolu sëriñ Tuubaa jeex ci tàkk amul woon lu muy bëgg lu sëriñ Tuubaa gis-gisam mësta génn sëriñ Tuubaa mësta génn liggéeyal sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul képp ku mës a jaxasoog moom def na ci yow ak nite def ci yow xam-xam yar la teg la ci siraatal boo ci xoolee sëñ Moustapha Saliou mii yàlla na fi yàgg téer moom sëñ Saliou di nga gis ni moo ko yar di gis ci moom euh, nite ga ak wan gi ginnaaw adduna ak wan gi ginnaaw yu baree baree bari ñuru ko lu dul sëñ Touba safu ko loolu nag képp ku jaxasoo sëñ Abdoulaat noonu la la def bëggoon ku dëgg lool fonkoon loole tamit kilifa ko teg mbiram ci yoon daana wax naan sëñ Mbay Jaxate radiyallahu anhu mii seen nijaay ndax sëriñ son yi bu Mbàkke rakki sëñ Abdoulahat di doomi sëñ Touba moo ni bala maa gëm ni kenn ëppale na mbir sëñ mbay jaxate bis pénc ba dafa jot ba ma teg ci sama bët ma door koo gëm ngir yéeme gu sëñ mbay jaxate yéeme woon la géer sëñ tuubaa ci taalif yee taalibe yi yee sëriñ si yee képp koy nelaw ku ne mu soññ la waar la teg la ci njub ba yàlla ñor la ak bi waaraate ñor la liggéeyal sëñ tuubaa ñor la sëñ bay jaxate moo mii sëñ abdulahaat dafa daan wax naan waxi sëñ babacar jaxate yar la ginnaaw gu nekk dana ca dal daal ni kilifa dina toll ci jamono joo xam ni ñu koy wër ñëpp dañ koy jay ak di ko wekk ak di ko ragal su boobaa kenn du ko ca wax dëgg waaye su boobaa ne déglu waxi sëñ mbay jaxate yii su amul dégg gu doy ci alxuraan bu dégloo waxi sañ mbay jaxate yii dana mel fi moom ni alxuraan ndax dina ko mën a yee mën koo jubbanti sëñ abdoulaat njub rek la bëggoon ci nit ku teg tànkam isiraatal mustaqim ku bëgg sëñ tuubaa koy liggéeyal kooku mooy sëñ abdoulahaat ku rëyuk wilaaya ku bëggoon taalibee sëriñ tuubaa ku leen sagal ku tegoon mbiram ci sopp sëñ Touba ku bëggoon ku dëgg kooku mooy sëñ Abdou kon kooku yàlla na ko yàlla fayal yàlla na yàlla dolli leeram taaf nu ci barkeem moom kat bari na fu mu jaar ak sëriñ Touba am na ci sax koo xam ni ci waa kër sëñ Siréloo yi la bokk ba nga xamee ni sëñ Touba ngi fobu 1927 am na dénkaane bu mu ko jox ni ko dinaa ko jël si sama bopp maay ñëw loxo loxo nga jox ma ko. wax nañ ni at lañ ci teg sëñ Touba wàcc ci liggéey mu ni comme sëñ bee ko waxoon di koy jël si de te waxoon na ma ko xawma ko nu muy demee mu téye ko ba sëñ Abdoulaat toog fi di sëñ Touba sëñ Abdoulaat ñëw na ñaari yoon këram muy xaar nde xam dina ko wax loolu ba bi sëñ Abdoulaat ni ko dénkaane bi laay jël si loolu xaw a mel ni lu gàtt ci moom sëñ Abdoulaat ni ko dénkaane ba la sëñ tuubaa joxoon wax la dina ko jël si loxoog loxo man mii maay sëñ Touba jox ma ko loxoog loxo su fekkee ne gëmoo li ma wax mawoo woo sëñ mu ñetteel ñu nga teg ma ko loxook loxo pour wan la sëñ Abdou rek ni mu doon ne sëriñ Touba kon kooku sëriñ Touba mu sotti la woon da koo doon nag ci diggante sëñ as Astou Diakhaté may maamam ak ci diggante Maam Mor Anta may maamam doon na ko ci diggante sëriñ Touba Xaadim Rasul mii wéejuram doon na ko ci soxna Mariama Diakhaté mii wéejuram doon na ko ci ay nijaayam ndax sëñ Amsatu Diakhaté mii nijaayam sëñ Touba fonkoon na ko lool sëñ Touba cëraloon na ko lool bari na fu sëñ Tuubaa jaar ak moom bari na lu mu ko may ci boppam muy mbër tamit ci mbër yi waaw ndax sëñ Tuubaa dem na ba jël ay darajey amsatu may bàyyi tëxu rasulilaay jox ko sëñ amsatu jaxate ci fekk ko muy dund mu indi sëñ amsatu mu mag ma mu di ko toog ci jataayam mu ni ko jëlal say daraja joxal ma ko sëñ ma sama amsatu mii kookooy nijaayu sëñ abdoulahaat euh, sëñ abdoulahaat it bëgg gi mu bëggoon sëñ Tuubaa daana dem ci sëñ amsatu mu ko ciy waxtaanal naan ko sa baay noon na sa baay noon na ma nee na dana teg tisbaar jàpp sa baay noon na ma ba timis ñoom ñaaram koy wax sa baay noon na ma ngir xam gu mu xam ci sëñ Touba moom sëñ Amsatu Jaxate kon sëñ Abdou ni mu meloon lépp lu mu doon la wilaaye gu rëy gi mbaax gi dégg gi alxuraan yiiw gi yar gi mu yar murit yi euh, sagal gi mu sagal murit yi redressé gi mu redressé taalibe yi ba boo seetloo sa tubaab yi bu ñu koy waxee le bâtisseur lañ ko tuddee le bâtisseur parce que il a beaucoup bâti il a bâti dans le mouridisme moo tabaxal yoonu murid li ñu bëgg lépp ay daaray kaamil ay jàngu ay jàkka kon c'est le bâtisseur waaye c'est le véridique aussi mooy nit koo xam ni dëgg rek moo ko ñoroon dafa bëggoon ku stressful koo xam ne li ngay wax lépp ci dëgg nga koy teg koo koy sëñ Abdoulaat bëggoon loolu alxuraan am na ku mu waxal ci ay mbokkam ku ñu doon wax daa man alxuraan lool jëm jëndi ko damaa peeg alxuraan ba mel na ni alxuraan bu jël li ñuy ngëpp ngëpp naa ko sama loxo sëñ Abdoulaat ni ko am nañu wuute man de alxuraan kawar boo gis sama yaram taxaw na taxawaayu alxuraan kon jëmmi alxuraan gi doon dox la moom sëñ Abdou Lahad jëmm la joo xam ni Serigne Touba Xaadim Rasul rek a fees bëtam dara feesul bëtam nekkoon gayndeek lislaam nekkoon gayndeek yoon wi yar taalibe yi dimbali leen nekkoon alimu kulli fannin nekkoon ci njabootu sëñ Touba nekk troisième xalifa Serigne Touba ci diggante 1968 ba 1989 loolu lépp mu liggéey ko Serigne Touba boole ci humilité. boole ci modestie boole ci sagesse muy ma boo xam ni kenn fekk ko ci boole ci woyof daana ko fekk ci Touba mu tëdd nii sóonu ci suuf si am na bi sëñ Cerno euh, euh, mii nga xam mooy sëñ Cerno Juuf Làmbaay moo ko nettali nee na li yoo jël euh, kaala di ko lalal mu ni waa ji Cerno Juuf Làmbaay dara matumaa lalal baal mu tëdd ci pàkk bi yàlla bii ab dëkk su fekkee mënoo jaar fenn ba doo fa dem da ngay fexe ba miinanteeg borom dëkk ba bala nga fay dem te faaw ñu dem ci bàmmeel kon nañ mënanteeg suuf noonu la sëñ Abdoulaat wooyee euh, fee woon am na bisit mu sóonu noonu am kenn ci taalibe yi di ko lalal morso mu ne ko mattu ko da ngaa yaakaar ne sa morso bee gën a la pàkkub sëñ Touba bee mu ne ko maa ngi koy tuub Mbàkke nekkoon jëmm joo xam ni léppam sëñ Touba la ko jox ba dimaas ci nga xam ni daayira yi mujj recevoir ci ngaay ñu fekk ko foofu ci belal ginnaaw ba la fatu wàcc liggéeyam ci 89 ca la tombel xam daa waajal boppam. ba sëñ Moustapha Sylla mag ñooñu ko doon dar mu defar loo leen benn alarme bu bees tàq waajal boppam ba defar léppam regle këram réglé lépp julli ba julli geewam ba naafile fattu ci biir euh, jël alquranul karim teg ko ci dënnam bu tedd ba di ko jàng defar lu sonori boo xam ni waxoon na ña fa war a toppatoo ñëpp dañ toog ci kër gi bu nu sori ba waxtu ba mu jotee ba mu demee fa mu bëgg a demee ci la xëccee sonori boobu mu alarmé daal di. signalé kër ga sonnerie ñu ñëw jël sëñ Abdoulaye yóbbu ko mu tëdd ca daaray kaamil kon kooku mooy jëmm joo xam ne peegoon na léppam te ci gëm sëñ tuubaak wóolu ko doyloo ko moo ko may lépp àdduna ak alaaxira nekk lu sell nekk lu yiiw nekk lu sagal sëñ tuubaak ak taalibe yi kooku mooy jàmbaari lislaam di sëriñ Abdou yoonu murit du ko fàtte lislaam du ko fàtte Sénégal en particulier du ko fàtte ci dëggoom ci njàmbaaram ci bëggam yàlla ci bëggam alxuraan te loolu Léopold Sédar Senghor notre ancien président poète la témoigné à son endroit Senghor waxal nag ko ndax Senghor da doon def kilifa diine ku ne mu lay jéem a nattu di la indi pale su la indee bu 14 heures jotee moins 5 rek mu daal di door a génn si su génn see convoi am gunge ko lekk yi tege mu jox la loxo déjouer sa plan toog ci waxtaan ak yow ba julli romb mu xool lu julli jaral def na ko kilifa yu bari ku ñëw rek. instant bi muy génn di la jox loxo ak bi ñëpp génn day fekk jamonoy julli tisbaar di jot mu mën a toog ak yow tegal la xéewal yi soo ko toppee waxtu julli bi daal di jël mu xam fam lay classé ba mu koy def ba dalal sañ Abdou Lahad jàmbaari lislaam mu ñëw fa keroog bi waxtu woowu yi jotee Senghor di génn si di ko jox loxo ànd ak convoi am ànd ak palaat yi di génn le sëñ Abdou Lahad daan ni ko Léopold maa ngi jéggul waxtu yàlla wi daa jot ngestu ni ana Moustapha Bassirou mu ni ko maa ngi mu ni ko li xaam la nu jullil ba noppi door wax lu nuy wax keroog ba mu jullee ba sërmal Senghor dane ko rien ne m'a dara bettu ma parce que sa wéejur wu tedd wa moo julli woon ci océan Atlantique bi soo jullee nii duma bett mbàkke amoo moroom kon koo koy sëñ Abdou Lahad kooku mooy borom wilaaye gu rëy ga borom fit wu rëy wa jàmbaari sëñ Tuubaa ja ki yar taalibe yi borom alxuraan ja ku baax ku yiw ka ki sagal taalibe yépp yàlla nañ ko yàlla fayal ñu ngi leen di balu àq di bal ñëpp àq seen mbokk fi nekkoon sëñ Abdoulaye Diop Bisri lu ci dëng ci man mii donga lu ci mat mbaax gu sëriñ Tuubaa gi yàlla ñu yàlla boole nangul ñu ngi baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq di siyaare ñëpp rawatina muritu gaspora bépp seen pas-pas ak seen yéene ci sëñ Tuubaa guddeeg bëccëg ñu nu koy wax ci ay message ci Facebook bi du ñu yëgal ni waxtaan dugg na leen te loolu lépp sëñ Tuubaa waral ko ñu ngi leen di xamal ne ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax di leen sant di leen gërëm yàlla ñu sëriñ Tuubaa boole nangul ñu ngi ci dëkk bi nag euh, koo xam ni di nga soxla sunuy waxtaan danga ko mën a am ndax ñu ngi ci dëkk bi ñëw nañu New York euh, depuis semaine bii war fee nekk dañ fi toog ba début octobre kon képp koo xam di nga soxla ay thèmes yu ñu la waxtaanal dinañ def ay waxtaan ci maam Cheikh Ibra Fall dinañ waxtaan ci maam Cheikh Anta ci maam Mor Jaara ci sëñ waa njabootu sëñ Touba lu ci waay soxla dañ la ko mën jox suñu numéro téléphone dañ la ko jox nga man koo am muy 646 379 ku ko soxla 6 4 6 3 7 9 8 0 6 0 is my number calling if you need me I can come to do good broadcasting about Sheikh Ahmad Bamba's life. Okay, thank you very much. God bless you.